ay ay ay ay ay dikkal wax yàlla yal na yàlla fay xale da ngeen a baax war nga ko ko ko loo leen àndal waaw ah ah non man na su ma leen laajee doo ma jox moo taxit jërëjëf yàlla sunu borom waaw kay man daal heure bu ma ko invité xol bu si guy laayam heure bu dëggee ci plateau bi wax dëgg yàlla damay am mbégte am contentement ma dikki maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. baa yaa ngi am jàmm di la gërëm di la ñaanal jàmm di nuyu tamit sa ñëpp. di nuyu sa waajur sama xarit la waaye tamit di kontaan ci yow ndax saa yu ma invité man tamit damay sawar a ñëw parce que da nga am degré intellectuel boo xam ne booy laaj da ngay laaj lu yaru te ak teggin te musuma jàppante yow ci ci dëgg la <laughs> jërëjëf jërëjëf kooku ngeen gis mooy ma Madické ñaa di sénégale bu mag bi di koo xamante ni nii wax dëgg yàlla avocat la boo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci àdduna waaye metre actuellement mu am décret boo xamante ni nii dafa wàcc réew mi mooy port yooyu di nga am fay ñaari junni yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla doo xam foo koy jëlee mais actuellement bu fekkee danga koo ko fàtte bu fekkee da nga fàtte max bi ma dikk ñaa ñooy def. waaw xam nga loi dafa tegu. loi dafa tegu côté justice laay wax parce que gis nga masque yi. kenn xalaatul woon sóoraale ñu ko woon ci ci justice Sénégal. dëgg la waaye dafa am foo xam ne article bu ñuy wax trois cent 312 dafay sóoraale. Mhm. en cas d'incendie ak yu mel nii boo amee. Mhm. kenn ku nekk ni nga war a taxawee pour mun a protéger li nga xam ne moom nga mën a protéger loolu dafa am laa boo xam ne daf ko link bi nga xam ne coronavirus daf ñoo dab. sóoraale ñu koon bokkuloon ci li nga xam ne article yi ak loi daka da ko sóoraale woon mais nag daf ko mbëbb mbëbbuwaale ci article 360 ndax dafa ne tout bi wala loo xam ne dafa am muy épidémie épidémie nag dafa bokk ci coronavirus donc day protection boobu loi bi dafa wax ne kuñ ci jàpp na fay ñaari junni waaye léegi bu fekkee da nga ka fàtte sa kër génn ñu jàppale ci amoo ñaari junni wala bu fekkee ne mënoo koo supporter ñu ñu jàppale ci amoo ñaari junni ñaari junni yooyu nga xam ne état bi moom lay laaj day dem ci keesu trésor day delluwaat ci ki nga xam ne mooy askan wi parce que dañ ciy def hôpitaux yi ci dañuy faj salaire yi ci dañuy jox lu bëri loolu je pense que tout dépend ci situation bi ñu la jàppee rek. d' accord amee avocat bu baax da nga ciy génn. <laughs> d' accord foofu sax laa bëgg a ñëwee maître Madické Niang est ce que bu ñu jàppee nit wax dëgg yàlla ci wàllu max mu nekk ca Kosovo est ce que pare nga pour daxaw wax dëgg yàlla pour jàppale leen wax dëgg yàlla ñaanal leen dimbal ñaanal leen njëkk fee nga xamante ne nii mooy justice. caama euh, xam nga àddina loo gis rek loi da ko tënk. loi da ko tënk dëgg lii. président tribunal la nit la kon yow day añ ngay añ muy reer ngay reer ngay ndékki muy ndékki mun ngeen bañ a bokk diine nag mun na tudd ko xam ne ci diine chrétien la bokk yow nga dokk ci diine musulman waaye yéen a bokk même yàlla bi te loolu dafa am ci bible bi clémence dafa am clémence am ci bible bi maanaam dañuy wax sax yoon ci yàlla Yesu Christ nee na dee leen baale boo leen jekkoo le pardon le pardon boo ko demee ci alxuraan tamit da nga ko ciy fekkaat yéen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naan boo jekkoo sa moromu jullit baal ko sa moromu jullit la wax nag ak ku muntu doon ci diine bu muntu nekk jullit la yàlla la gëm baal ko waaye loi dafa ñëw daal day taxawal ay barrières. ay barrières. état ñoo teg ay conditions. dëgg la buñ la jàppee ci conditions yoo xam ne amoo avocat bu baax duñu ciy tëj. waaye ku ñu jàpp tamit te amoo ci ci loo xam ne ñàkk pexe la woon war a nga fàtte man mën naa laa défendre mais défense bi day doon loo xam ne clémence ci ànd ak sursis bul ko defati ak sursis ak sursis clémence mooy yërmande baal ko sursis mooy boo ko defaatee boo ko defaatee boobu damay sol mbubu avocat bi boobu da ngay sol ah laa ilaaha illallaah daa day taxaw xam nga ajaa ko jë bu fóotee mu set bu paasee mu melax melax man <laughs> sama yëre branché du ko sama yëre branché séré du ko laal mu tax ma waaw du ko laal ajaa ko jë fóotam fóotu ajaa ko jë jar na 14 milliards te boo plaidé rek ajaa ko jë bu la fóote day foo plaidé la yàlla def ci sutura da ngay gagné xëccal ma voilà kay nii ngay def xam naa ne dama ko dëpp waaye li may wax moo dëpp a nii baax na dama ko dëpp de Ah, dama ko dëpp amul solo la l'essentiel que baax na yàlla baax na léegi loo wax. Euh, euh, bu fekkee wax dëgg yàlla nit da doon génn fàtte mag sam nit amal dix mille francs ci ko sam tey ñu war koo atte mu dikk ñaar taxaw ca bara yu war koo atte lan lay taxaw ak bu fekkee ne benn nit la du jar dem nga yebalo parce que ñaari junni ku la ko mënul fay ku ko mën a jël ñaari junni ku am problème pour fay ko ba ñu yóbbu la ci tribunal wax dëgg yàlla doo mën a dajale mbooloo yi ah, dañuy dajale yu bëri yoo xam ne dina nekk ci fan war a téeméer personne nga daa dee ñëw porté wu volontaire pour daal di lay plaidel yàgg naa plaidel ay nit du ma laaj xaalis sa yàlla tax mm-hmm. rawatina boo ne murid laa rek sama yaram day tàng bu dama lay plaidel sax après jël ko def ko addiya donc ñi nga xam ne dañaa génn seen kër te mm-hmm. fàtte seen masque ne état dawal compréhension kon ñaar ñii mën nañ leen baal ki nga xam ne dafa asma. dafa asma surtout. te yaramam may ko ak no nooyem may ko mu takk masque 24 heures sur 24 heures na xool tamit fi muy jëm. dëgg la. booy génne na nga dox farata. na nga dox farata. xam nga ne da ngaa feebar. booy génn na la farata tax a jóg. soo ko fàttee nag na nga li nga xam ne mooy sa ordonnance médicale wane na ko yow xëy na moo tax waaye du tee nga teg ko teg bu gàtt parce que dañ koy aaye la loi et puis la loi kenn du ko fooyee. parce que ci loi laay dundal <laughs> la loi moomay dundal. kenn kenn du bafoué la loi. dëgg lii

ci kaw état. ci kaw état. ci kaw li nga xam ne mooy OMVS ah. organisation. mondial de la santé bu ko tënkoon nag ci 1844 dafay làqatu ci ginnaaw mun nga ko protéger waaye ci kaw condition boo xam ne day nekk épidémie. day nekk épidémie. 44 mooy taxaw daal koy boole modifié ko nga mën a bàyyi kii mu dem clémence ak sursis. laa ilaha illallah ndeysaan maître ma dikk ñaa ngi noonu boo ñëwee ci métier bii nga xam ni wax dëgg yàlla mérité na ko jàng na ko def na ci loo xamante ni nii wax dëgg yàlla bu taxawee ca xam ne dañ ko digg tuuti suñu président boobu nga xamante ni nii mooy président Macky Sall mooy président de tous les Sénégalais wax dëgg yàlla dégg naa dafa am benn kii benn union boo xam ne da ko woote ñi nga xamante ni nii ñooy opposants yi pour defar benn gouvernement bu bees est-ce que bu la ci woowoon doo sa wàll boobu doo ceeg si xam ne ñoragul mooy prématuré ko déggee mën na am ci doom goo xam ne dafa jur te prématuré mais dañ koy dugal fenn di xaar mu développé wu pour mot gis nga pour l'instant taluma dugg ci benn gouvernement xam nga lu tax parce que dama yor sama métier avocat ma koy plaider nag di ci am ay client di ci suturu sama bopp waaye nag bu fekkee ne dama cee jot ndigal waaw dañ cee jot ndigal taxaw sama réew taxaw sama réew dama cee am ndigal mm-hmm. mën naa taxaw ci banqaas bi ñu ma dénk pour développer li nga xam ne mooy sama xam-xam mooy sa xam-xam bi laay liggéey mi laay liggéeyal liggéeyal ma Macky Sall de liggéeyal ma APR sama parti bopp laay liggéeyal ak sama liggéey bopp ndax jot ci ndigal nag si sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général ku lu murid sëñ maa def leen te tàggawu ma ko dëgg la ndeysaan mbokk yi kook gis mooy maître Madické Niang waaye dañuy dellu soit tuuti wax dëgg yàlla bëgg koo tëjee waxtaan wi mooy ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñooy te ñooy takk max yi te li ma ci dégg mooy bàyyiwunu xale bàyyiwunu mag bàyyiwunu kilifa diine bàyyiwunu kilifa aada képp koo xam ne takkul moom wax dëgg yàlla sa ñaari junni moom dina rafet. waaw loolu la parce que état tamit dafay soxla tamit garanti gis nga bu buñ bàyyeeku gis nga bàyyeeku bi ci boppam muy indi yenn gis nga coronavirus lekk na loo xam ne nit ki boo ko gëmulee xëy na daf la dal war a dalu say mbokk waaye tamit daw tamit nit koo xam ne daka amoon wala nit koo xam ne da nga yaakaar ne boo taxawee moom da lay wàll gis nga tamit dafa am ay discrimination criminelle euh, criminelle criminelle waaw maanaam nga gis nit koo xam ne dafa amoon dafa amoon coronavirus nga ne kii dama koy moytu mën na ma wàllaat daka daw loolu moom ci boppam stigmatisation lañ koy wax te loolu loi kay koy bañ da koy bañ gis ni dara di ko daw war a di ko taqal leen <laughs> loolu wax dëgg yàlla loi 44 da koy gis nga gis nga loi 44 daf ko protéger ci kaw loi 35 daf décret sanitaire la décret sanitaire le président de la république moo koy signé jox ko ministre de la santé. Mhm. Eva Marie Coll Seck. Eva Marie Coll Seck liggéey liggéey de la santé pour une épidémie contagieuse contre le Ebola pour en cas euh, cas si cas 45 ak cas 44 loi 12 mooy protéger 42 fekk 12 taxaw ci universel ratification de l'OMS. ilaaha illallah ci àddina ndeysaan ne leen kii sénégalais africain bi wax dëgg ni bu taxawee ci baar bi wax dëgg yalla sa xel day dal non seulement métier bi da koo jàng non seulement maîtriser ko te. layal xam nga tamit ministre affaires étrangères. étrangères yor na def naa justice yor naa ko. Mhm. yor naa yooyu yëpp nag su ma doon dugg ci gouvernement Macky Sall du ay poste minime laa fay dugg parce que xam naa état yàgg naa état nekkoon avocat état président état muy président Ablaye Wade kon xam naa état. jërëjëf mais la woon ba jox la étranger joxaat